الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بوك جولي بوك تلسبكتاتور يوف تي في ديلو سن ديلو نيو تي سين ايميشن بيغا خامتاني موي اوتو دينا دي ني ديكو عمل ساسوني بو اديو ما جوتي دك يالا ني دان كو ديف ديغنتي 13 14 غير وير كور دي يالا دوغال ني ген نان تي وير كور دي ديلو وات نان تي اير بي كولانتي موي ديغنتي 16 ak 17 te di ko séq ak borom xam-xam yi di ko séq ak ñi nga xamante ne ñooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko séq ak ñi nga xamante ne digg yàlla diine ñor na leen waaye bala ñoo def dara dañuy àgg fii ci sang bu tedd bi ziar ko muy Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye di ko ziara ci àjjuma ji di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a dolli wéram njabootu Seydina Limaam bi mu jiite yàlla ko yàlla defal lu ëpp njortam ci barkante bi sallallahu alayhi wa sallam di ziyaara Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mansour xalif général de Tidiane di ko ñaanal yàlla moom it njabootu Tidiane di mu jiite ak njabootu Seydil Hadj Malick yépp yàlla ko ci yàlla defal lu ëpp njortam ci barkante bi alayhi salaatu wasalaam ziyaare kilifa diine yi ci réew mi yëpp bàyyiwuñu kenn Serigne Mountakha ak kilifa diine yëpp di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di profité di baalu àq ñëpp di ñëpp àq di leen wax ni yàlla bu nekk suñu mujj weer koor luñ ci jaamu yàlla ñu ko yàlla nangul am ci rëcc rëcc yàlla ñu ko yàlla jéggal ci barkante bi alayhi salaatu wasalaam te jii nag ñu dalal ci suñu plateau wax dëgg yàlla koo nga xamante ni kenn la ci diine ji rawatina kër na Limaamu Laay muy njiinum Yaasin Laay di jàngalekatu alquran yor daara internat wax dëgg yàlla tey ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu jëm ci daara ji mu ngi nii toog dëgg yàlla ñu fi boog euh, doomu ndeyam di koy jàppale ci daara ji tamit muy Baye Jibril Laay nga xamante ni bokk na ci ñi nga xamante ni ñu koy jàppale ci daara ji أنا dama len di baye rek am jinum yasin lay mu nuyo ak mbokk telespectateur yi nga xamantene ñu ngi setan ñi ñu الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وسفينا خرة عين سيد العرب والأجم سيدنا محمد إمام الله عليه الصلاة والسلام يولين نيبو باخو ساز دلين نانا ليال جامع di ko ñaanal alxalifatul am fi tariqi laayeyni sayidina babilay thiaw laay ayadallah wa nasar wa ata umra di ko ñaanal jàmm mucc tawfiq aafiya yàlla defal ko ko yàlla yokk wërsëgam ci kaw suuf defal ko njabootu sayidina limaamul mahdi gi ne ci kaw suuf ñépp te yàlla jiital ci seydi muhammadul muxtaar moom sayidina mañullaay saahibul kiram di ñaanal njabootu sayidina limaamu gi ne ci biir suuf ña jiitu woon ak ña leen fekk ñépp sunu borom ba yokk seeni leer tàbbal leen àjjanay firdawsi di ñaanal suñu waajur papa taala yàlla yokk leeram di ñaan it yalla dëkk bi di yoof yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla na fi yàlla dolli jàmm suñuy imam yi fi nekk yàlla na suñu borom ba taxawu leen te dimbali ci di ñaan it ñi nga xam ni ñoo jiite administration bi suñu borom ba dimbali leen dafa leen jàmm ak afiya yoof yàlla na fi yàlla yokk jàmm yoof na fi yàlla yokk jàmm di nuyu ñu seqal plateau bi yépp يالنا يالا ديفون سوتورا يا استاذ نيو باغي نون اللهم صل على من اتبع الهدى صلى الله عليه وسلم با جيبير دي باي لا نيو موك تيسبكتاتور دي سيتان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا إمام الله المهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي واحد نبي كلمة لا إله إلا الله di jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp euh, fas yéene ñëw am lu ñu a waxtaane tuuti si li nga xamante ni mooy mbiri diine ala rawati daara ji nga xamante ni si lañ ne defe naa kilifa gi nuyoo na te defe naa tamit nuyoo bu mu nuyoo matale na su ko defee ñu wàccee foofu kàddu gi bismillah jërëjëf euh, mbokk yi mu ngi noonu seen émission ëttu diine ji ñu koy amal saa su ne fii ci Yoff TV ñu leen di wax rek koo xamante ne allah bëgg naa participer ci émission bi rek mu taaxirlu tuuti rek ba ñu ubbi waxtaan wi incha allah mën na woote ci 77 717 23 59 77 717 23 59 ñu sang baa ngi toog képp ku ci bëgg am ay leeral looy laaj wala loo bëgg a ci daara ji rek incha allah boo wootee rek di nga jokkoo ak euh, njiinum Yacine Laye ngeen waxtaan ci bu soobee yàlla incha allah waaye bu ma ñëwee ci sama invité di njiinum euh, ñu gis ni daara. yombul lu la inspiré ba nga ba nga dugg ba nga ba nga préféré nekk ci daara di jàngale waaw alhamdulilah fa lillahi alhamdu wa sukr di wax ni hada siraatal mustaqim صراط الله الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين loolu moo ñu tënk ñun ñépp ñu juddu ba dox ci kaw suuf kon bu ñu loolu tënkee ñun ñi nga xam ni ñooy doomi jullit yi ñu judd ci sunuy ndey ak sunuy baay yàlla dogal ñu judd ximmeekoo ci yoonu siraatal mustaqim kon mënuñu jàpp lenn lu dul bëgg a daara mënuñu jàpp lenn lu dul bëgg diine loolu nag mooy sabab bi yàlla wax ci alxuraan ni man maa leen wàccee ngir ngeen tënku ci yoonu jub maa leen wàccee bool leen ak alxuraan karim ngir ngeen mën a jubal wax ji mooy sunu boroom dafa wax ni baana bismillahi rahmaani rahim dafa wax ni alhamdulillahi rabbil alamin baatu alhamdu mooy li ñu yàlla wàccee ba ñu ñëw ci kaw suuf waroon yokk cant gi ñu ko sant sant gi ni sant yàlla nag du doon dañuy toog di togg ay ñam di joxe amuñu ko sant bi ñuy sant yàlla du doon dañuy wër ci dëkk bi naan nit ñi ñëw leen ci diine ndax amuñu moyen yooyu mais cant gi ñuy sant yàlla mooy dañuy delloo yàlla njukkal jàpp alxuraan def ko muy suñu wasila ndax wasiixa alladina taxaw rabbum ilaa jannaati zumura kon loolu mooy suñu objectif ñun ngir ñu mën a doon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jullit ndax yàlla moo ko wax innamal mu'minuna ixwatun faslihu bayna axwa axwa bi mooy li nga xam ni moom la ñu ñun fekk suñu li yàlla wax ci alxuraan mu ni kenn ku ne utal naa la benn buum booy jàpp boo xam ni moo la jàppale sa ndey ak sa baay utal naa la it buum boo jàpp mooy buum bi nga xam ni moo la yéegal yóbbu la arjanay firdawsi te loolu liggéey la laaj ci kaw suuf ñu gis ni nag ñun bi ñu juddoo suñuy ndey ak suñuy bàyyi yaroo ci keppaari diine ci ëtti diine ndax képp ku xam Papa xam ni moo xalifatul ambaad nay caw ñoo yàgg ànd di liggéey ci diine képp ku xamit suñu waay wayjur soxna ummi soxna ummi Guèye doom yi soxna ummi Thiaw bu Seyna Mandione kon xam nga ni ñooñu su bàyyi laay dee seen maam mënu ñoo topp lu dul diine topp gi ñuy topp diine nag bu doon ñun kese dañ ciy wéet du mu dem mooy dafa am aslu boo xam ni moom lañu ñu mbir mi mooy ginnaaw bi ñu gisee ñun ni ñu mel ak ni àdduna mel ñu daw làqu ci alxuraan ngir alxuraan suturaal ñu ñu daw làqu ci alxuraan ngir alxuraan muccal ñu ñu daw làqu ci alxuraan ngir alxuraan teral ñu noonu la suñuy mbokki diine ku mel ni oustaz mi toog ah, ak ñeneen ci daara ji mat nañ ay ay ay nit ñu baree baree bari ñëw daw làqu ci alxuraan ngir ñuy jàng alxuraan nga gis ni jàng alxuraan boobu moo ñu inspiré ñu nekk ci di jàng alxuraan te euh, ñu ngi ko tàmbalee 2005 jëm 2006 jusqu'à présent ñu ngi gisee di jàng alxuraan di ay mag di ay maire di ay mag di ay di ay borom kër di ay mag di ay ay bachelier am ñoo xamante ni ñu ngi université mais ñu ngi jàng daara ji am ñoo xam ni ñu ngi ñu ngi ci seen liggéey mais ñu ngi ci daara ji yàlla dogal na loolu moo fonde mbir mi mais tàmbali bi metti woon na ndax dangay dem ba sax footoog toog jàng alxuraan doo ko am mais yàlla dimbali ñu boole ñu ak suñu bu baax ku ñu wax Ibra ñu ngi koy ziar Ibrahima laahi dëkk fii ci booru jàmmalaay ñu ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla jàmm ak suñu yaay yaay kumba ndóoy nga xam ni moom fi mu toll nii këram la nekk jamono yi may wax ak yow ni am fay at di jàng alxuraan mu jox ñu këram lépp masuñu laaj luyaas masuñu laaj courant masuñu laaj ndox ñu nekk fa di nap na bi ci suñu téere kenn ku ne di dimbali moroomam waaw bi loolu amee sunuy yaay yi nga xam ni ñoom ñoo ñu mag fuuf ak sunuy moroom yi fa ne ak ñoo xam ne ñooñu mag di di ay mag si ñun wala di jaay si ñooñu tamit ñëw jàpp ci liggéey bi mais dañuy wax ni oustaz fi jamono tollu tey nii bu fekkee dañu tal suñu bopp rek bàyyi sunuy doom ñun dañoo échec ñun ñuy wax ñi échec nañ ba pare ñun dañoo échec ba pare li tax ñu échec mooy amu ci benn jullit boo xam ni boo ko fëggee ci dënnam fekk fa diine lislaam bu sell bareetul képp koo gis muy mbubboo diine wala muy wax ni dafay dund diine raxe na leneen loo xam ni bokkul ak li yàlla bëgg te loolu buñ ko seetaanee suñuy doom buñ ñëwaatee ci mbaal moomu lañuy ñuy lonk te mbaal moom moo leen teeral ngir bañ loolu ngir bañ loolu ndax ñun wala ku waxal yàlla xam ne ñun ñu fi nekk ñun ñëpp dañoo échec mm-hmm. waaw dañoo échec léegi nag bi ñu demee di toog di jàng alxuraan nga gis kenn ci média yi kuy jàng sa alxuraan bootaale doomam ñëw gis si bàyyi kuy jàng alxuraan diwaale doomam ñu gis ñu xam ni kon ñun lii war na ëpp lii ñu commencé nag di dajale xale yi di leen jàngal pendant huit ans yoo xam ni amul fay. kon jàngal ngeen xale yi su ma la déggee huit ans. huit yoo xam ne fayee ko ñu benn xale. kon yan moyen ngeen doon utiliser ak jàngale li mu laaj. ba ngeen di jàngal yi. Hmm. ñu fay dara. ba pare hmm. ngeen di avancer ci jàngale bi yan yan méthode ngeen utiliser. alhamdulilahi rabil alamin tabaarakallah xam nga yàlla moom rabbun aadil la. Hmm. buur bu mu màndu la. moom li mu soxla mooy ku ku ko jublu ba pare am objectif ba pare sellal. وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم لولو دو loolu دو ja du jaadu nga koy sàkku ji na jëkk nga xamni yow yàlla mo la sak nga di nit wala khat karamna bani adam wa amalna fi al barri wal bahri yàlla bim mu koy wax waxul la daf la teral nga doon nit ñi amili non daf la teral ngir nga don ku noble do don ab yalwan kat do don ñaan kat da la teral ngir nga don ko ubbe ko ci aduna da la teral pour nga don ko am vision bu sori ngir mën a tedd ci sa dund ci jaamu yàlla tedd ci sa dund boo faat yàlla yóbbu la illa yéen a daaru naa léegi loolu bi mu amee ñun ñu dajale suñuy doom parce que ñu bokk lañu tàmbale dajale suñuy doom doonte ko ne fukki xale nañ wala juróomi xale ñu dajaleeg ñoom di napp na bi ci téere bi bi loolu yi am xam nga euh, yàlla moom dafa barkele waaw li waa ji wax naan néewle barkelee gën yàlla dafa barkele bu xale yi jàngi see ba wàcc masalan romb ko ni yow mu yor allubeem ñu ni ko yow fooy jànge mu ni maa ngi jànge ci daar yi jan daara mu ni daara yaasin kër sëy naa limaamu fii kooku xëy suba indi doomam wax ni man de sama doom laa bëgg mu jàng ñu ni ko fii amul fay soxlawuñu dërëmu kenn mais ab yar la nu soxla li jiitu ci yar yi nag yéen nday ak bàyyi yéen koy def ndax yéen da ngeen échec baa xam ngeen loolu amul ku ñuy ragal wax loolu nañ la wax ne la yow da nga échec nga wax ko ba nga dégg ko mais ci waxin wax bu tegg ni lay doon ba yow doo vexé wu ba pare nag ni la soxlawuñu dërëmu kenn dañ bëgg xale bi bu fiy ñëw na na nekk ku ku neex a xool ndax sa doom buy dem ci yeneen école yi ma bañ a def publicité si dëkk bi xam ngeen leen ñu ngi fay weer wu dee ay quarante cinq mille ay cinquante mille ay soixante mille ay trente cinq mille vingt cinq mille quinze mille dix huit mille te ñoo ñu koy fay seen doom du fa fanaan bu fa demee duus bariwul du fa lekke te ñu ngi sonn ci lool te lan lañ bëgg seen réussite àdduna bàyyi yowmal xiyaam te nag dangay ngay nga war a ñaan nag jannal jannateeni daani mm-hmm. am am tedd ci kaw suuf booy dund soo faatu illa yi na nga am teddaange mm-hmm. loolu nag boo ko bëggee da ngay da ngay sa bët wala da ngay yëkkati sa boppa ci yoonu jub boo xam ni yow ak sa njaboot gépp ndax kenn ku ne yàlla sàkku la yow kese nga ñëw si kaw suuf jóge ci asamaan ni dip amul mm-hmm. ataa maam aadama yàlla ko liggéey ci xereñam kullukum min aadama wa aadama min turabin avant bi looluy jëkk avant loolu am yàlla dafa wax ni man yàlla ni bu leen am jaxle ci instant mi ngeen tiim mu taxaw wax ni leen aw ma bàyyi ndey laa am ni ma bindee aadama te mu umpaleen noonu laa bindee insa mu umpaleen léeg nit da koy def léeg-léeg sàcc day ñëw wala boog léeg comme li histoire bi am ci diggante seytaane ak maam aadama seytaane dugg na biir àjjana lu ko dugal benn jaan bi mu duggee mooy loo na maam aadama maam aadama génne nañ yàlla déshérité ko wàccee na ko léegi nit ñi borom xam-xam yu mel ni man ñi nga xam seen xam-xam soriwul ñaan mais lu yàlla doon seetaan xel na wax ju ëpp yooyu ba seetaane dugg biir sawara mooy na maam mm-hmm. loolu du wax yow seetal ni yàlla bàyyee xel sa bët ak sa dund bàyyi ba sàcc dugg sa kër sàcc sa kër gépp waxal lool waxal kon lu yàlla doon seetaan c'est-à-dire ay jàngal la yoo xam ne yàlla moo ñu koy jàngal ngir ñu mën a dégg ndigal wala taxraba haasi sajara fa takuna min azalimin bu mu la jaral nga bon ba sang bon taxal say doom kon nag ñun suñuy doom pour gàttal bu ma ñëwaatee seen question yeggali ko comme ñun suñuy doom dañu ñun dañu échec dañu bañ suñu doom échec foog ñu dajale suñu koñ ñi fi nekk suñu dëkkaale ñu dajale xale yëpp bëggoon naa ñu ñëw ci parce que boobu ba léegi maa ngi dégg yaa ngi utilisé mot dañu échec waaw mais tuddee dañu échec entre waajur bi ak doom bi ci wàllu daal waaw damay bañ a tënk temps bi sama boor mais dinaa wax ne dinaa ñëw ci moom mais li wax ni dafa am solo voilà jaadu na ñu leeral loolu maanaam échec bi lan la lan mooy échec waaw alfayda mm-hmm. bu fekkee ni yow danga doon nit mm-hmm. ñu jur la ci ndey jur la ci baay mm-hmm. sa baay bi la jur ci ndey sa ndey ji la sa baay ji la jur ci baay sa ndey ji la jur ci ndey taxawu bu dee ndey taxawaayu ndey yow sa ndey daf la doon jël bi mu la wasinee ginnaaw bi ka ki rawalee yëkkatee ni yow de yàlla wërsëgal na la doom bu jigéen nga bëgg yow ndey bàyyi bëgg nga yëkkati ko teg sa dënn noyyi nokki goo xam ne nokki allahu akbar la mooy nokki sant yàlla xam nga boo déggee jigéen ëmb naa leen wax leen yàlla tif c'est-à-dire waxuñu leen ñu wax yàlla tif ngir meubler mais dañuy wax yàlla tif ngir delloo yàlla kattan gi ak man-man léegi yow ñu jox la ko nga teg ko sa dënn sant yàlla nga yëkkati xale bi teg ko sa loxo uuf ko yëkkati sa ween ku ko ni xale bi sexal ween bi ku ko ko wax jalla jalaala wa azza mu yóotu sa cusu ween daal di ko sex bi mu xëccee pourtant deret mënoon na ñëw min bay ni fasin waddam lu gisul yàlla wax ci diggante nefere ak laa defere man yàlla lu sell lu neex a xëcce lii bi mu ko xëccee moom xale bi mu génnee meew mu sell lala loolu la yàlla tudd meew mu sell mu daal di xëcc meew mi am ci bu doon ndox la am na ko ci bu doon ay ferñeent am na ko ci bu doon lu koy suuxat am na ko ci hmm. nga dem foofu ñu jël la yow ki ñu jur tette la jàngal la alxuraan gis nga bu njëkk mag ñi dégg naa léegi jamono bi nit ñi ñu ngi delluwaat ci wet googu di deelu dugal seen doom ci ci alxuraan ngir këram am na si ñoom dañ daan profité ngir seen doom doon xaafis balaa ñuy doon ku màgget seen doom mën a jiite kër gi julli am ñoo xam ne dañ daan jéem a nax yàlla dañ daan jéem a nax nax yàlla waaw yàlla wax naka da nga yéen a may jéem te a leen seen bopp ngeen nax lan lañuy jéem a nax yàlla dañuy yóbbu xale bi ci daara mu ubbeeku ba am sept ans ñu xëcc rocc yóbbu France Mm-hmm. wala yóbbu école français mu jàng ba am diplôme yóbbu France mu fàtt sax diineem mm-hmm. léegi nag ñun li tax ñu échec mooy suñuy ndey ak suñuy bàyyi liñ ñu may loolu mm-hmm. ba pare yar ñu si yoonu siraatal mustaqim jubbal nu ba ñu jub ba ñu doon ay nit ñu xam-xamee ràññee nga gis avocat bu toog di àtt nit di wax ci alxuraan ni lii ak lii nga gis médecin buy faj nit taxaw di wax li ko yàlla tegtale si faj nga gis ingénieur bu taxaw di def la muy ingénieur di si xalaat la ci yàlla wax kooku ndeyam ak baayam dimbali woon nag mais ñun li tax ñu échec mooy ñun dañu jur ay doom nga gis jigéen bu jur doomam war ko nàmpal xëy liggéeyi bàyyi ko ci kër gi utal ko biberon loolu du échec képp képp li muy nàmpalal la te liggéeyu liggéeyu jigéen du farata bu ñu waxantee te yàlla tax du farata ndax yàlla moo wax ni yéen jigéen ñi ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa yéen jigéen ñi ay noble ngeen vous êtes des nobles bu ngeen ko xamee bu ngeen ko xamul teral naa leen ba pare ñu ne ko yàlla noonu terale mu ni dama leen def ngeen di magasin defar leen ba ngeen jekk ngir liggéey man yàlla sama loxo bu tedd ma dugg ci seen biir yi liggéey fi lu ñuy oowee nit doomu aadama yemuma foofu ma def leen ngeen di ñoo xam ne dañ leen di jox waaye du ngeen joxe donte ko ne sama soxna la muy xëy di liggéey di wàcc buy fayee ko du ko jox su ma ko joxee sama gor du may ma jël ko dama ko naan dollee kooku waaw kon kooku tedd na léegi nag bu la yàlla mayaatee beneen teraanga muy doom te jigéen moom moo mën a wasin waaye góor mënta wasin waaw ñu ne am na ko nekk ci ligne bi ñu jël salaamaaleykum salaamaaleykum sëriñ bi ba ñu baal yëpp baal tuuti rek mën a dégg ci jokkoo bi ñu ngi lay fay tur bi ak foo bi neexul de sëriñ bi ba moom moo ñu baalu nag bàddi tuuti rek waaw dégg-dégg bi xaw a dina kan tuuti rek moo ñu baalu yokk bàddi tuuti rek ñu mën la jërëjëf ci euh, dugg léegi ci ligne bi ñu ngi koy ñaanal yàlla jàmm ak afiya di ko wax ni lii rek lañu soxla ci diine ñu dimbalante te yàlla tax ñu bañ a ragalante Seydina Limaam alayhi salaatu salaam dafa mosoon wax ci baatu ragalante lu gàtt rek bref ma dem ci li ma ci li ma doon wax mu ni bu leen ragalantee rek du ngeen ñime du ngeen am yiw seen diggante na ngeen ñimente te lu tax ngeen di ñimente mooy nit ñi ñoo leen koy def xam nga yow léegi bu jibi ñëwee ci man wax ma ci yow dara bisimilah. salaamaaleykum sëñ bi wàññi sa télé bi. waaw bu baax la ñi nga xamante ni ñu ngi woote bu ñu di mane ba la ñoo woote ñu wàññi seen télé yi ndax bu ko yokkee déggante ak ñoom lay daal di naqari kon ñu leen di ñaanal képp kuy woote rek bu mënti génn fi mu nekk mu wàññi télé ba déggante bi mën a nekk. waaw li ma doon wax ma ni euh, comme li tax ñu mën a ñimente mooy ji bu ñëwoon ci man. wax ma ni ma sëriñ bi man de nangam nangam nangam nangam ci yow. ma ne ko moom kooku nangam sàngam bu génnee daf lay gën a ñime ba pare gën la da gën a soxore ba pare gën la iñaane mais su ñëwoon ma ne ko. waaw man salaamaaleykum. soxna si ngay sa génne téléphone bi tuuti rek ma laaj soalnya soo jël sa téléphone yi tuuti rek ak jël gémmiñ ñu mën la dégg ndax wax bi dafa bon euh, loolu dafa am solo dama koy wax rek ñu dem parce que ngi téye temps de trop mooy que ni euh, bàyyi laay alayhi salaam daf ñu jàngal ay tegtal mm-hmm. bokk na ci tegtal yi may wax euh, ñuy gërëm suñu barki dem rek mu ngi ci waxtaan ak ñun mooy que ni yow bu la yàlla sàkkee ngay xayru xalxulaay ku mel ni Seydina Limaam da daan wax ni yéen saaba yi na ngeen moytunte ndax kenn xamul si yéen kan mooy diw kan mooy kan wax na wax ci biir wax mu ni waa ji sëriñ bi dafa ni bu fekkee ni moom jibi dafa ñëw si man fekk dafa jotee ak yow ñëw ci man ma ne ko waa jibi da nga doon da nga doon jotee ustaaz mu ne ko ma ne ko waa sëriñ tàngam bi baal maa xam dama doon jotee moom mu ne ko bul jotee xanaa xamoon ustaaz oustaz may yi ko yàlla may nangam nangam yi ko yàlla may jibi bu génnee nu mu lay def daf lay wekk mhm. da lay considéré yow bu ma boo ñëwee si man ñu daje may la waaye da nga doon jot ak jibi nga ne ma waaye nga ne may la moytul jibi de jibi xanaa xamoon ni nangam sàngam lu baax ci moom su fekkoon ni loolu ñu ngi koy def ñun ñëpp kenn du ragalante. bu fekkoon ne ñu ngi koy def ñëpp kenn du ma mhm. ñëwaat ci yow bu ko defee ñu ñëw ci Baye Djibril na na ñu yaasin yéen a nekk ci daara ji. Mhm. Euh, nga yor xale yi di jàngal. bu li léegi yow ma lay laaj yow yow ban méthode ngay utiliser ba alxuraan bi dugg ci dund xale bi bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp ñuy rafetlu li nga xamante ni mooy question bi ndax defe naa jàngale moom secret bi si ëpp solo ëpp si doole mooy am amubu jàngale ba pare mm-hmm. parce bu dee li ngay def bëggoo ko situation moo si dugal bu dee situation oblige rek après boo gisee leneen loo jàpp dañ si gaaw a jóge bàyyi loolu dem seeti loolu leneen loo le te ñun yàlla daf ñu nattu jàngale si suñu famille la mën naa ni suñu deret la ci suñuy maamaati maam la ba ni mu tegoo suñu loxo du luñ bëgg parce que jàng nañ ba xaw presque am fu ñu yem suñu jàng bëgg a bàyyi def leneen mm. waaye ba ñu laajee suñu kilifa ni dañuy def di nangam dañu ñu leen def di loolu dañ leen jàngale ji parce que mooy seen cër mm-hmm. donc loolu ñu dem ba nekk ci am amour bi yàlla nattuñu ci dimbali ñu tëlewuñu ko ci kàttanu yàlla baaxu bàyyi lay ku ñu jàngal insha allah rabbi foo jaar ñu xam ni am na am na ñu jaar ci yow te ñuy jaar ci yow tamit am nañ particularité par rapport ak ñeneen ñi jaar ci yow yàlla dimbali nañu xëy na am na yoo xam ne xëy na lu ñuy wax fii ay ni ñuy jàngalee dix ans mm-hmm. waaye am na système bi ñuy jàngale boo xamante ni macha allahu rabbi mm-hmm. bu nit ki buñ ko jàngalee bu dee ko mën woon liir sax une semaine bi buñ ko teglee consécutif insha allahu rabbi baax bàyyi la dina mën a jà- dina mën a commencé dawalal boppam alxuraan lu ngeen di bind jox ko muy naan lay doon wala lu la bu ñuy teg ay kii sax bagage yooyu yëpp deuxième parce que nit ki bopp moo ëpp doole lépp lépp état d'esprit mm-hmm. te bu dee danga nga gëm ni lii fi tegu nii war nga ko mën a falaxe jàll insha allah rabbi lu fi sa objectif di nga koy atteindre ndax eh, biñ fi wax ne nit mën na dem si weer wi boobu bi ko nit ñi gisagule dañu mënul ne waaye dem nañ ba léegi weesu nañ sax ni nit mën na dem si weer wi te dafa bokk si mindeef yi yàlla yi nga xamante ni nii maanaam ko bind te nit mën ko teg bët muy xel muy xel nit nag mooy liggéey comme mbër mi ni muy bëggee doon mbër jaar si tefes gi entraîné ba ñax xaamewum naa ñu yépp jour bi ni mu koy bëggee yeneen ak yeneen ñun noonu la ñuy tàggate suñu bopp si jàngale tey bu ñu jàngalee méthode bii mu xaw a yéex ñu jëlaat méthode bii changé jëlaat méthode jëlaat méthode ba yàlla def na trouvé nañ méthode yoo xamante ne nii macha allah rabbi kuñ ko jàngal incha allah rabbi doo ñee sa morom doo ñee sa morom si leen daal. incha allah muy di lu xale est-ce que ñu ngi leen di jàppale ci xale pour pour alxuraan bi a gaaw dugg euh, leen ubbi. te seeni waajur yi di tamit jafe-jafe mën na am est-ce que collaboration bi nga xamante ne war na am diggante kii jàngal xale bi ak waajuram est-ce que collaboration boobu am na. waaw macha allah côté boobu moom moom mbir moo gis dina am côté bu positif ak côté bu négatif mais dañuy sant yàlla si li nga xamante ni mooy li nga xamante ni mooy avancé ndax jaan chaque jour mbir bu tegoo dafay xool li nga xamante ni moo si gën a positif mu jël ko ndax muy mën sant yàlla. Mm-hmm. ñàkkul ñoo xamante nyakal nag ñàkk na ñoo xam gëdd alquran mais ñun yàlla suturaal nañu dimbali nañu allah alxaalix ba lépp loo xamante nungkai nii ñu ngi koy séq ak ñi ñuy jàngal seen i wayjur ñu ngi siy wasu ak daka bañ ba dañuy ñenn ñi dañuy fàqe yat sax jox la ni la bu jàngul rek na waaye yàlla dimbali nañu ñu ngi jàngale sans autant que ñuy dóor yàlla defal nañu si si si côté boobu noonu de passage sax ma si sama oustaz bi nga xamante ni moom ma jàngal bi suñu mu toll fa laa doon jàngalee avant may dem si daara bi muy oustaz euh, Baye Mor di Tongo moo ñuy jox méthode yi nga xamante ni ñoo ko doon jàngalee macha allah wéy juri saa nga dem si koo xamante ni da koy jàngal ba pare sax mu am satisfaction boo xamante ni xalaatul woon ne doomam di nekk si fii mm-hmm. mu yëkki yére may la wala yëkki nangam wax nangam jox la ndax barke alxuraan loolu lépp alxuraan moo ñu ko may mm-hmm. wéy j ñu ngi satisfaire ñu ngi satisfaire ñun suñuy du gaakoon ni nga xamante ne nii moom la beneen méthode bi doxe ndax alquran ni ko sëriñ bi waxee rek kenn du ko waxaale bu doon lu ñuy waxaale am na foo xamante ni peut être way jur duñ fay gag ñoom ñun duñ fay gag ñoom waaye dañuy dem yàlla dimbali ñu buñ ñëwee def te yàlla tax ñoom itamit si seen côté am nañu si yàlla dimbali carrément ñu xam xàqu alquran ba ñu ngi jëflante ak ñun lépp loo xamante ni parfois sax dafa wees suñu jot. parfois dañuy wees suñu jot ñaan rek ñu préparé ñu élément rek wax dëgg yàlla ñu jëm ci wàllu liggéey bi nga xamante ni moom la liggéey ah, ñu gën a xam rek ñi nga xamante ni ñu ngi seet ak xam ne am na daara yoo ni ñu ngi fi dafa dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu ba xale yi mokkal alxuraan kon ñu ngi leen di ñaan na ñëpp ah, préparé ngir jël seen doom yóbbu ñu jàngal leen alxuraan bi ci seen dënn ndax alxuraan mu jëkk te mooy mujj wax dëgg yàlla di profité waale tamit ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci ci ci jënd wala di yëngu ci jaay Euh, yor ay produit yoo xamante ni bëgg nañ koy ko fësalal incha allah bu ñu jokkoo ak service commercial euh, Yoff TV incha allah lépp luñ ci manti doon rek dinañ leen fekk fa ñu nekk jëlee leen ko waneel leen ko boobu dëgg yàlla seen produit boobu mën a dem képp ku ci bëgg euh, jaay si produit rek boo wootee ci numéro bii ma lay jox 77 483 68 51 77 483 68 51 boo ci wootee rek incha allah di nga jokkoo ak service commercial. dinañ la wax yoon wi ngay aw ba sa produit bi mën na ko wane ba li ñu ci bëgg yëpp nga am ko sëriñ bi yoo xam naa dañ lay bàyyi rek nga joxe sa dernier mot mm-hmm. euh, xamante ni moom koy wax ci daara ji ñàkk ko yoo xamante ni ñu euh, ngi jël seen doom di ko yóbbu faneen ci bu teg daara waaw santaat yàlla macha allah alhamdulilah xanaa gën a ñaaxaat nit ñi à que ñuy jox seen bopp yàlla subhaanahu wa taala mm-hmm. parce que foo xamante ne nii tôt ou tard fa ngay mujj dañ fay te alxuraan dafa doon mbir moo xamante ni dama si ñaax sama bopp di si ñaan ñaax waajur yëpp ñu bañ a naxante ak yàlla ni ko sëriñ bi sax dugal sa doom alxuraan sept ans six ans nga jël ko dawal moom feneen fàtte alxuraan nga am na te bâtiment fondement da si am solo ndax mooy li nga xamante ni mooy njëkk sa bâtiment bi ay moo fay mujje mooy gën a féete suuf ndax mooy li koy téye kon donc bu ñu bëggee suñu njaboot bañ a échec comme ni sëriñ bu wax nañuy giital su ñoom alxuraan mu doon leen te mooy seen tislaa ba yu bëri yu xew xew-xew jamono yi ñuy dégg ñu bañ si dugg ndax lu mu bon bon bon li ñuy essai yëpp am na fa suñuy wéyju teg suñuy tànk ba jomb nañoo def yenn yi kon donc loolu noonu insha allah rabbi ñu ngi woo wéyjur yëpp ñu woo si seeni doom te lenn mënu ko dugal si ñoom lu dul alxuraan mm-hmm. boo fi jàngee livre ko mën a jàngaat mokkal livre yi philosophie keneen ak keneen ak yëpp école loolu lañ dafay jàngal mhm. te bu dee fii xaala laaw xaala rasul ngay dégg te loolu moo la mën a jariñ fii jëriñ la ëllëg fu ñu jëm mhm. donc di woowaat ñëpp si daara ji tamit ku si mën a jàpp ñëpp si liggéey bi si jàngale ne si lépp soxla nañ ñëpp si lépp mhm. ndax nit kuy def lu baax foo ko séenee sama papa tam gaa dani ma boo si mënula bokk fexeel nga bokk sa nit naan ñoo si biir kon donc man loolu moo dugal si si mbir mi sama dernier mot moom di sant sëriñ bi bu baax ndaxte mën naa ni sax amoon cëru toog fii. Mhm, incha allah lii ma fi def ni sax daf ma bi tamit muy liñ fi waxtaanee ni ndax man pour man damay ñëw rek assister. Mhm. ndax li ma boole si daara ja léegi nii matagul at wala bu koy mat si lay yem dañuy daje mën a maa ñëwal si daara ji liggéey bi daara ji liggéey bi daara ji ma dem ba kersaw mhm. ndax suñu kër daara dafa am ñu ngay jàngale si daara ji si Marakaafane man damay jàngale ci feneen ba mu ma ko waxee. ma sacrifié wu bàyyi daara ja foofu ak sama rakk ànd ak moom ñu dem Tëngéej nekk sa daara ja yàlla defal ka muy koo xamante ni da ngay war a yëkki jox ka mais loo def mun la bàyyi lu mu yor yëkki jox la kon donc moom itamit man ma dëgg fa yàlla benn côté amu fayam ndax bëri na yitte yu ma am si alquran ak si xam-xam lu bëri ginnaaw yàlla moom bokk na si nga xamante ni ñoo ma ko poussé muy xam-xam di xaalis di yére daal lu mu jekku lu mu sol tey suba boo nekk rafet na rek. rafet na lay bañ boo nekk rafet na rek mu yëkki jox la kon donc moom ku jara ñaanal la macha allah rabbi ñu ngi koy ñaanal yàlla gën ko fi bàyyi gën ko fi daaral ba nga xamante ni ba mu yeggal émission bi nga xamante ni moo nekk si kanamam ndax diine yi maamam diine yi alayhi salaatu wasalaam li ñuy wax rek kay lenn rek ñu si jaaxal ba bàyyi laay wootee gars yi jiitu woon dañoo raw ba tey ñoo ngi daw ñu ñuy daagu ndax ñun dinañ dabe ax mbaat mi làkk na jëm mu dul teerwaale kon donc yàlla nañu yàlla boole si ñi nga xamante ne dañuy teeruwaale ji àggali matale matal suñu mission si diine si naan maam salaatu wasalaam sant suñuy wayjur santaale la yéen ñi nga xamante ni yéen ñu dalal macha yi muy noonu nekkoon Baye Djibi Laye doon kenn ci jàngalatu daara yi nga xamante ni dëgg yàlla moo nekk fële ca kër euh, daaw Sarr ca diwaanu Tëngéej ji mu séq ak euh, suñu doomu ndey di toog dëgg yàlla ñuy ay jàngalekat yu mucc ay dalal ko fi tey ngir waxtaan ci wàllu daara ji ñu koy gib rek incha allah beneen yoon dinañ gën a toog fii ñu gën koo yaatal bu soobee yàlla xam dem allah àggale waxtaan bi ak ah ñu noonu mbokk julli di ñëw ko gisa doom muy témoignage bi nga ñi jël seen doom ko sang bi toog ngir mu def ci ñoom xam-xam def ci ñoom alquran ñoo taxaw doon témoin bu dëgg dëgg wax seen def baax ndax euh, wax joo nga xamante ne amul seede nit ñi mën nañ ko gëm mën nañ ko bëñ a gëm waaye wax boo nga xamante ne am na seede kenn du ko weddi ma naari naari yaa ngi nii loolu moom kenn du ko weddi ndax kenn ci yaayu ndongo yi nga xamante ne ñoo ne ci daar yi dafa taxaw fii seede wax muy suñu yaayu Kumba Bey Laay mu taxaw fii seede ci doomam ci njàngale mu rafet euh, euh, wax ju baax la day tungoom ay seede te doomam a ngi toog di fàllu fàll laay moom it dañ koy bàyyi mu jàngal ñu alxuraan ba ñu xam ni wéyjuram seede yooyu mu seede ah li mu wax dëgg la kon Serigne Fallou yow lañ bàyyi rek nga jàngal ñu alxuraan galas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي مخرج آه، البر فجعله ساعة نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سيذكر من يعشى ويتجنبها الأشقى وصلى بل توسرون الغيات الدنيا ولا

ci ngeen ko taxawal. bu mhm. nekkoon daal ngeen dem ba ci biir ngeen def ko internat te ku ne xam na ne internat dafa laaj ay moyens. Mhm. dafa laaj ay moyens. ci ci ban ngeen ngeen moyen ngeen taxaw sukkandiku ci ba mën a def daara ne internat xale yi nekk fa ngeen internet leen yor seen dund yor seen lépp loolu lan ngeen ko mën a réussir. waaw alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Fallou jërëjëf jërëjëf jazakumullah xeyran kasiran oustaz wax nga lu am solo maxaarij ñu doon jàngee. Mhm. lu xuruf yooyu nga xam ni moom ngay dégg buy jàng lu mu war a taawil mu xëcc ko fu mu war a taxaw mu taxaw foofu fu mu war a mën a mu noy fa loolu lu am solo la nga waxaat nag beneen mbir mooy riwaaya bi mu doon jànge muy riwaaya warsh li ci wax lu am solo la riwaaya la bu naqaree jàng xaf su moo gën a neex moo gën a gaaw mais riwaaya warsh dafa xaw a diis dafa xaw a metti mais macha allah yàlla defal na lu li jibi wax léegi rek loolu mo ci nek yàlla defal na dimbal ba njangami amna am na cëslaay loo bu xese ba am rek la dess day la ci dess day day neex day oyof moy li jëkk moy fexe ba xale bi xam mom moy kan xam lu ko indi ci daara ji xam lu ko war digganteem ndayam ak bayam ñi ko sos ngir mu ñëw ci daara ji moy nga fexe xamé ana lan moy lif ana lan moy ba ana lan moy jim ana lan moy qaf ana lan moy xa ana lan mooy saad ana lan mooy taatsin ana lan mooy razain ana lan mooy euh, ayn nga xàmmee ko ba foo ko tuddee rek ñu xam ni baat bii xaraf bii nga bëgg a tudda waaye nga bëgg a wax o wax xa kenn du xam xaraf bi nga tudda nga bëgg a wax xa wax xa kenn du xam xaraf bi nga tudda mais maxaari yi nga xam ni moo ci am solo xale yi mën ko naabaale ñu ngi koy amee ci bu ñuy jàng xaraf yi mën a xàmmee xarf bu ne lan lañ koy waxee son bi nan lay génnee sa làmmiñ war na lemu warul lemu sa dënn war na ubbeeku warul ubbeeku yooyu yëpp dafa nekk li nga xam ni mooy tax xale bi am doole ci alxuraan yaa ngi ko ñaan léegi yàlla yàlla ubbi sa dënn balaa yàllay ubbi sa dënn foog nga mokkal xarafi ëpp ajj add ak àll yooyu mooy ubbi dënnu góor yàlla buy jàng alxuraan te yooyu yaa koy mën a ci xaraf yi ngay jàng ci débutant kon loolu moo tax xale yi li ñu am nii ginnaaw bu ñu yàlla def les sura ñu am ko lii la léegi nag euh, yaa ngi wax ni daara ji bi ñu ko fondé depuis boobu 2005 2006 2005 2006 dafa fekkoon ni ñun mag ñi comme ñi yaay yi waxe sànq ñun mag ñi ñoo doon góorgóorlu suñu jot di ko jox yàlla dañuy liggéeyi yi ba 17 heures ñu wàcc waaj dem jàngi ba 20 heures 20 heures 20 heures demi bi ñu dema dem bay yéegal heure yi ba léegi heure yi mu ngi ci diggante 19 20 heures 21 heures pour ñu jàngi wàcc minuit et wala minuit wala 23 ay ay yaayam mu ngi ci lay jàng si ak yeneen yaay ak man ak yeneen i bàyyi di jàng si alxuraan booba tey mais nag ci xale yu ndaw yi bi ñu tàmbalee mooy li ma wax léegi dañ leen doon jàngal amul fay dinaa la wax ne kër Ibra Sow kër yaay sama kër moom dañ fay jàngee jàngee jàngee ba mu saf daara mujj gi dañ ñu mujjee jël amuñu laaj fu ñu nekk loolu tamit dëgg la li ñu laaj ñun soxla nañu dimbal bu baax a baax a baax ci ci kaw soxla na ndimbal bi sax ñu ngi gërëm di sant bu baax a baax a baax a baax Seydina Babilaay Thiaw wallahi di sant sama maam laali mm-hmm. yàlla yàlla yokk leeram ak di sant sama tante Thiaw laay mm-hmm. ñu ñu dimbali leen ci daara ji ak jëkkëram Ablaye Diouf baas bi njëkk am jëkkëram moo jox cinq cent mille ñu dem jënd ko mm-hmm. baas bi njëkk am di jàng xëy sama kër takk ko foofu de du dundit amul nawet amul fa la ñuy toog di jàng moo ko jënd te boobu nekkul dara boobu nekkul dara benn pos si kaw suuf te boobu jël na alam jox ñu ko di sant suñu xarit suñu suñu suñu suñu suñu suñu idol suñu royukaay Seydi Mouhamadou Mokhtar bu Seydina Ababacar Laay bi daara ji jóg dafa jël xam-xamam jël ñaanam jël alam def ko ci parce que daara ji xam nga daara fa moom kees pharmacie dafa ni bu leen ci laaj dara bu leen ci ut dara man maa koy def moo defar kees gi defar yépp andi ñu ko lu ñu soxla ci suñu bopp dañ koy jëm utiliser foofu jël ko mais li nga xam ni moom la ñu bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ni ñoom la yàlla gesu lan la waaye nañ gesu jaam yàlla yi ndax li tax mooy xam nga sama mamran da daan wax naan trois cent mille moo nekk sab loxo sa digg loxo mu ni huit cent millions moo nekk sa tënk fii mu ni un milliard trois milliards moo nekk sa kaw mbagg mu ni bu lii demulee li ci tënk loxo bi li ci oom li ci li ci conc bi du ñëw kon li ci mbagg bi du wàcc mooy ñun ñëpp ay lantinoor lañu lantinoor rek li ñu koy doyee mooy day jàllale diw lantinoor bu demee bu mënatul jàllale diw dañu koy wekki sànni fële te li tax ma ne ay lantinoor lan mooy gisoo kenn ku añ tey ni suba duma añ ndax añoon naa démb gisoo kenn ku reer tey ni suba duma reer ndax reeroon naa démb kon loolu lay wan ni loo am ba dimbali ci sa bopp ak gestu ñi amul dimbali dem léegi nag daara ji di doxee noonu ba ñu mujjee nag bi ñu demee ba taxaw nag ni gars yi jàngale mi ñuy jàngale des na ñu convoqué parents yépp ñu leen yéen ñëpp xam ngeen ni am na lu des seeni waaw ndax xale buy jàng di wàcc maanaam xale boobu day jàng samedi ak dimanche wala mercredi samedi dimaas dem ñibbi xale boobu mokkalam day des ñu ne ñu léegi dañu am beneen exotique beneen beneen gis-gis am daara ji fi nekk manuma leen lim bari nañ bari nañ Seydina Yuusufa am ci ni ñuy jël Euh, waaw léegi bari nañ Seydina Yusufa Karim Yusufa Apexi Seydina Yusufa euh, euh, Ismaïla Nuurul Nuuru Jalil Ablaye Diagne Cheikh Gallo Ablaye Thiaw Nuuru ñeneen ñu ma mënul lim ñoom ñëpp ñu ngi si daara yi ñoom ñëpp dañ ci jàpp mm-hmm. te li ci garaaw mooy daara ji dafa dafa ñàkk kàttan ñàkk doole mm-hmm. amuñu naan amuñu fóot seen yére amuñu am fu ñu tëdd mais nan ngeen mën a revenir condition yooyu ba mën a taxawal internet waaw mooy li ko mayee mooy daara ji ñi fi nekk ñi nga xam ne mooy ñooy magi daara ji mm-hmm. ak bonne volonté yi nga xam ne ñoo ne suñu ginnaaw mm-hmm. donte ko ne ñaar lañ war a ñett ñu mm-hmm. ñuy dimbali seen kattan mais terewul xam nga ñun léeg-léeg nga bëgg sa waajur nga bëgg ko ñaanal alxuraan nga ne kaay jàngal ñu kaamil soo ñëwee ñun dañ la naan duñ la fayee ñu dërëm liñ bëgg mooy condition yi ñuy teg na baax fi ñuy teg ñu jàng na doon fu set bu kenn jaabante ñii jàng nañ leen déglu bu ñu jàngee pare loo mu jox mu néew bari jamono yi may wax yow ca internat ba la bu dee nag jamono yi nga xam ne internat bi ñëwagul woon parce que internat bi daaw lañ ko fonde join juin bi passé 2019 bu fekkee nag avant internat bi ñëw bu mu daan amaloon duñu ko laal dañ koy bàyyi de côté ku mel ni man su ma amee gan ñu jëndal ma si xar ma daal di tudde sama doom jigéen bu ci nekk ñu war la mayee ñu utal lay bagages nga dem sëy léegi nag bu ñu demee ba jamono koor ñëw ñu woor ba am ay 10 14 wala 10 13 jours ñu organiser benn journée boo xam ne dañuy togg ay ndogu yu bari tas ko ci dëkk bi ndax lan dañ ni comme lii. di ñu ñëpp nekk ci nit ñi mu nekk nii asalaamaaleykum. waaw soxna si baal ñu wàññi sa télé. baal ñu wàññi télé waaw léegi bu ñu defee loolu nag daal di ko wasaare ci dëkk bi yëpp ndax xam ni li ñu am nii ba man ko wàññee ba mën a defar lii ci jaam yàlla yi la jóge kon dañ koy delluwaat ci jaam yàlla yi léegi nag parent bu ne nag ci internat bi am na loo xam ne dañ la ko sas yow li la sa doom nangam nga ko war a joxe weer wu jox te loolu bëriwul trente cinq mille francs lan laaj weer wu jot foo xam ne sa doom fa lay tëdd fa lay fanaan fa lay yeewoo fa lay def lépp ñuy la joxe loolu warul tàgg le 5 bu jotee boo ko amul bu mu àgg le 7 le 8 ñu ngi siy góorgóorlu bu baax a baax te ñi si seen doom ñëpp nekk ñëpp ñun amaguñu lu mat euh, fukki ñaar fukki taalibe amaguñu lu mat fukki taalibe juróom amaguñ ko mais ñi fa nekk ñëpp macha allah sëñ Fallou mi exemplaire la si. ñu ngi لا ما صار لا لا ها لا يفعل مي ولي اندي زيار ما شاء الله كونتان نبي تارك الله يلا يلا كونتان يا ربي يلا يلا كونتان والله والله امين يا الهي امين يا الهي امين يا بوك يا رب جزاكم الله خيرا جرجف جرجف جرجين آه، ما شاء الله يلا يلا كونتان الو لا ما تعرف laay maxtaar laay laay jërëjëf Kumba Bey ñu ngi lay ziar baax ñu ngi lay ziar waaw macha allah macha allah jërëjëf kontaan nañ yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla fay leen ay yaay ay yaay exemplaire ngeen yàlla yàlla fay leen jërëjëf jërëjëf laay maxtaar yàlla yàlla amin amin yaa rabbal alamin amin wallaay yàlla jërëjëf jërëjëf macha allah macha allah jërëjëf jaajëf macha allah gis nga ki dugg léegi moom mooy yaay yaayu fànn mooy kumba béy te te te te taalibeeb Cheikh Amadou Bamba la daara ji amul ay ay ay ay layan laa non non daara ji dafa ubbeeku pour bépp jullit ndax jullit bi la yàlla soxla mu xam nan la ak naka la moo tax ñun amuñu ku ñuy woo ku ñu dul oo ña fa nekk ñëpp nag dinañ leen teg ci yoonu siraatal mustaqim mais nag nit ku ne li nga xam ngay jàngale waaw ñun Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam moo ñu jàngal nan la nit ci nit ñi jëm ak fawate Mbàkke ñu eh, ngi ziar ñu ngi lay ziar Mbacke Mbacke ñu ngi lay ziar bu baax ndax ko zaari ñu ngi lay ziar. jërëjëf Mbacke ñu ngi lay ziar euh, cheikh bi daara ji comme yóbbu nañ ko ci internat léegi bi ñu ko yóbboo ci internat dañu déplacé daara ji yóbbu ko fu ñuy wax kër Daawda Sarr kër Daawda Sarr nekk ci diggante Tëngéej ak Kunun waaw boo ñëwee ba ci boo jëlee péage bi ñëw ba deuxième péage avant ngay dugg pour jëm ñi soo wàccee rek sa gauche am na benn tali rang-rang boo ko dawee tuuti rek boo tax di gis benn guy mm. soo gestoo di nga gis benn immeuble boo ñu ngi ko peinture peinture bonbon mm-hmm. immeuble boobu ñoo ko moom a mm-hmm. waaw foofu lañ ko mujjee yóbbu ngir mën a muccal xale yi ci déplacement ak coow lu bari mm-hmm. ngir mën a muccal xale yi it ci gis-gis ngir ñu mën a fegu. foofu yéen a ko moom yéen a ko fàmm wala waaw jërëjëf euh, ci kaw loolu ñuy gërëm bu baax suñu xarit. suñu mbokk daara Baye Moussa ci daara ji la nekk mm-hmm. bi ñu bëggee lii pour wax la dëgg rek yow fu ne dugg nañ fa pour am lu ñu defee lii mais doxul mm-hmm. bi mbir mi demee ba toq ci noppam moom sama suñu mbokku daara boobu Baye Moussa mm-hmm. mu toq ci mbokk frère am boo xam ni mu ngi tudd Mara ñu ngi koy ziar mu nga ba bitim réew mu dugg ci noppam la ni lii da ciy def doole ba liy taxaw këram la fi ñu nekk këram la mu fexe ba àggale ko lu gaaw gaaw a gaaw a gaaw ni ñu mu ngi noonu dugg leen mais xam nga ni timit booy dugg ci mbir dafay am ay sart ñu sarte woon ak ni léegi dinañ ko jël mais weeru dee dañ la jox nàngam nga xam ni kon foofu dafay nekk si suuluwe boo xam ne ñun dañ koy fay chaque weer wu dee léegi nag ku noonu lu mel noonu boo ko amee ña fa nekk mataguñu sax ñaar fukki nit sanga loolu du yomb te kooku bi mu lay jox këram daf la ko jox à base de dimbali la ndax kër goo xam ne R plus 1 la ñu jox la ko ci ci loo xam ni buñ ko doon wàññee ci koppar du dara kooku daf la dimbali waaw te dimbal boobu la ñuy sàkku ci keneen ku dul ñoom ndaxit it euh, ñun ñi nga xam ni maa lay wax benn affaire bu bu garaaw ñu ngi koy bëgg romb sax mooy échec bi parents yi dafa garaaw de dafa garaaw moo tax ñu ni dañuy fexe xale yi ñu jàngal leen boo buñ la indiloon règlement intérieur bi nga xool ko dañ leen bëgg a jàngal ba ñu xam àdduna ñu xam àdduna àdduna nan lañ fiy nekke xam nasaraan bu fekkoon ne ay làkk la wala lu ñuy tukki tukki ñu xam ko bu baax yeewu li jar ba lu ñu gis xam lii lan la xam la ca ginnaaw bëgg leen xamal li nga xam ne moo tënk jamono tey muy xeetu euh, làkku anglais bi nga xam ne nit dañ ko jël ba fi mu toll nii soo demoon jidda pour nga mën a mucc ci comme sa arabe dafa des pour nga mën a boo leen làkkee anglais ñu wuyu la ak it lan nga xam yow nit ki dëkk bi nga dëkk ñun dëkk bi ñu dëkk dëkk bu làpp la Sénégal boo tuddee Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam tudda Ruhul Xudsi tudda Seydina Amadu tudda Seydina Babacar tudda Cheikh naa Cheikh Amadou Bamba tudda maam Alaaji Malick Cheikh Omar Fouti mais dëkk bu mel nii fu Baay Ñas nekk ah, dëkk bu mel nii ku ko yow say doom bu ñu fu ñu dem war nañ doon ay exemplaire pire ñun la comme ni dañu yàqule ñu bañ ñii yàqule ak ñu topp si ñoom. dëgg la ñu bañ ñii yàqule ak ah, ñu topp. man la yàlla am na solo temps bi gàtt na lool. temps ngi technique bi. waaw ñu ñu ngi jéggalu ñu ñu ñu tuddul seen tur ñëpp. dañu nekk si daara ji di leen ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal suñu kilifa Seydina Baye Ablaye Thiaw Laye mu yàgg fi loolu te gën a am jàmm mm-hmm. man du ma koy ñaanal dama naan yàlla yàlla yokk wërsëgam man loolu mooy ñaan ma koy ñaanal yàlla yokk wërsëgam te di ñaan yàlla mbas mi fi ne mm-hmm. yàlla ko fi yàlla jële dafa am benn ñaan bu Seydina Limam alayhi salaatu wa salaam jox jaam yi sa julli ga mu ne allahuma najjina ma najjin wala tuhlikna mal halikin safan sana wal mulku daahim imam mursalin ñaan gi damay wax ni bu ñu wax allahuma najjina ma najjin ba mu jeex dañuy wax allahuma rabbana najjina min maradi corona yàlla nanu yàlla musal te muccalu ci feebar bi ñuy wax corona ak yeneen feebar yu dul moom ndax feebar yi bëri nañ te feebar bi ci gën a garaaw mooy rax du xol ràggu xol mooy feebar bi gën a garaaw te bëri na yàlla na ko yàlla saafaral di gërëm ñi na ci plateau bi yëpp jibi ñu lay santaat bu baax a baax Cheikh Fallou macha allah jazakumullah xayran li la doon de mat nga ko yàlla yàlla fay la oustaz ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm yu mel nii dafa war di bëri maa ngi leen seetaan fan yi passé ngeen di waxtaan ak eh, imaam yi si dëkk bi li mel ni dafa war a bëri ndax li tax mu war a bëri sëriñ bi li yàqu bëri na de suñuy doom yi mm-hmm. naroñu am chance de ñun perte nañ mais buñ ñu defarul suñu doom ñun sañuy doom ñuy gën a perte ñun li ñuy wax naan gaal gi bu timmee ba mbar mi dóor coon gi daal di xar ndox mi gaal gi siqi dem bu ko mbar jëlaatee fu mu ko foogul day xar gaal te bu ko xaree ñun ñëpp dañuy dañuy dig te loolu la ñuy ñaan yàlla musal lu na nañu yar suñuy doom nañu yaru ñun nanu am kilifa nanu am na ñuy dégg ndigal foofu la ñuy tënk kàddu gi di gërëm di sant yàlla yàlla defal sutura ak tawféex allahuma salli ala sayidina wa nabina wa safina xuratayni sayidina imamila alayhi salatu wasalaam allahuma salli ala man xatamta bi risalaka wa ayadduhu bi nasrin wa kawsarin wa safa sa naay yor daal internat fële administrateur di war a tëngéej wax dëgg yàlla ñuy ñaan ñëpp nag ñu jàppale daara bi ndax daara bi doo ko jubla soxla nañu ndimbal soxla nañ ku leen jàppale képp ku ci bëgg a am lu la leen rek mën nga leen a woo ci 77 783 66 02 77 783 66 02 boo leen ci oowee di nga jokkoo ak ñoom nga dimbali leen te yàlla tax ndax ku dimbali daara yàlla nga dimbali ku dimbali alxuraan yàlla nga dimbali te ku dimbali yàlla ndam rek nga cee jëlee ci barke ndax ndam dimbal lépp ci yow lay dellu la min ka ilayka lay doon kon wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu dimbali leen te yàlla tax ndax amuñu lu alquran amuñu lu lu suñu doon ku leen jàppale rek ah, yàlla mën na laa defal sutura mbokk yi tey ñu ngi leen indi loon seen émission ëttu diine gi nii lay demee saa su nekk ni ma leen ko waxee rek képp ku am produit bu mu bëgg a fësal wala mu am ku bëgg ko defal publicité incha allah bu jokkoo ak service commercial bu Yoff TV incha allah ci 77 483 68 51 77 483 68 51 incha allah dinañ ko defal publicité bi ñu ko bëggee incha allah dinañ ko fësal li ñu bëgg mu fës ci kàttan yàlla ak yoon ci yàlla Muhammad di gërëm ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci caméra bi di Seyna Njoon Laay di ziara même si ñi nga xamante ni moo nekkoon ci téléphone bi ak Alsaan bi nekkoon ci euh, technique bi ñu ngi ziar Euh, fàttali ni kenn di ziar sama soxna mi nga xam te moom ma toppatoo moom mën a ñëw toog ci écran bi mën a wax ak yi ma ngiri te loolu ma ngiri faaboy di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla guddal fanam may ko njaboot bu bi bi di ziar ñëpp bàyyi ñu kenn di ziar sama sang boobu di aji ñanga sekk di sama sang di sama soppe di sama lépp euh, di ziar maam jaara sama soppe sama féete sama lépp di ko ziar bu baax moom it ci àjjuma ji wasalaamu